di am mbégte lool ñëwaat fekk la fii ndax ni ko sa waajur sa mag yu baax di waxe woon moo yaay ay tànkam yaay ay bëtam yaay ay loxoom foo nekk moo fa nekk kon buñ la gisee dañu mel ni moom lay gis man seenu taalibe bokk ci kër gi maa ñëwaat di siyaare si ni ma ko doon defee ak mu jot bu bisub sëriñ Touba bi teroo dinaa ñëw fii sàkku si ñaan sàkku si ndigal boo ma ko joxee na ko bëggee ma defe ko noonu ngir dëgg wut si li nga xamante ni mooy ngërëmul sëriñ lu war a ren ma ànd délégation bi ma àndal jóge ndakaaru ñëw indi fi téeméeri junniy masque ak 10 800 sel yu pompe yi ngir ñu mën koo def ci liggéey bi nga xam ni danañu dàq mbas mi ni ko sëriñ lu waxe man nag li ma leen di wax rek mooy li am solo mooy boo ma gisee may dox boo ma gisee may wax Touba rek laay waxal Touba rek moo ma ñor te yow mi yaay ki ma ñor taali bi dong laay xool tey jii may wax ak yow am na ay wax yu bari yoo xam ne déggoon na mu jëm ci gan gi fii ñëw loolu tamit bëgg naa ñu leeral ko ndax tey jii bu ngeen woon bàyyi li ma nekk ma bàyyi bu ngeen ne woon demal nga teeru ko dinaa ko lal ay tapis rouge jële ko Dakar ba fii ndax sëñ Tuubaa man na may may na ma loolu te si yéen laa ko amee te fas yéeneen koo teer fas yéeneen koo teer na ngeen ko bëggee te ganu ko sëriñ Tuubaa dañ ko war a jàppale dañ ko war a teeru ndax li mu defal fii sëñ Tuubaa ko defal kon tamit loolu wax naa ko pour ñëpp xam ni lii fii ñëw muy ki foor li mu def fii sëñ Tuubaa tax mu def bu fekkee def na loo xamante ni maam sëñ Tuubaa tax mu def ko yow mi si bokk bokk si taalibe war a sant jàppale ko kon loolu moo war a rek kàddu yi nga xam ne ñu ngi doon dégg yëpp may ñëw pour dalal sa xel xam ne dara du fi am dara du fi xew. kon lii nga wax léegi itam daanaka jiiru dellusiwaat sax waaye loolu moom séntuwuma ko jëm ndax sëñu ko sax ndax fi nga fi nga bokk sama am sëñ bi ab sëtam sënte ne ci biir Tuubaa si ñun taxaw di santaan dara mu cay mu cay mu naan dara ko def loolu moom. Mm-hmm. ko xamutu ko xalaat waaye yéen sëñu leen ko. te bu ngeen ko naroon def sax kon moo woo leen ba ngeen ñëw tëral leen ko waaye li tax waxuma leen ci dara mooy xam naa ne du ngeen ko def loolu moom daanaka jëru jëru sax dellu si waat jëf nga fi te defoon nga daaw muy jëf ju rëy te li fi xew lépp it noonu nga koy defee loolee itam gis nañ ko waaye nag ki tax nga di ko jëf mooy Sëñ Tuubaa kon yàlla na da ci fay ndax sëñ moom lu ko jëfal rek am na am na pay loo ci wax loola day am seere. ànd na ma ak président Abdoulaye Wade mu jum 2011 la ak maître ma dikkee ci biir oto bi xam naa am ñàkk koy ñett waaye ma dikkee ma ngi ci biir oto ñu dem ba tolloog bentu nit ñi di ko yuuxoo Abdoulaye daal di mer nag daal tàng ne ne li ñii de lii ñuy def baaxut ndax man di man bu dee sama jëmm ñu yuuxoo ma amul solo waaye rek sëñ bi moom dëkkam amul ganam ñu ngi koy yoxoo loolu defuñu ko sëñ bi ko def loolu moom maa maa ko dund am na ñu ko wax fii ci ci biir kër siñ Tuubaa yi